الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القدر المقدوم شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن والديه وأزواجه وأبنائه وخلفائه ومقدميه ووسائلنا إليه ساداتنا محمد الغالي والشيخ الحاج عمر الفوتي والسيدي الفاهم يروي والشيخ الحاج مالك بن عثمان وأبنائه البررة الكرام الأعلام سادتنا أحمد وأبي بكر سادتنا الشيخ سيد أحمد سي والشيخ سيد وأخيه وصنوه الشيخ السيد أبي بكر سي رضي الله عنهم أجمعين وإخوانهم سادتنا محمد الحبيب والشيخ الحاج محمد المنصور والشيخ الحاج عبد العزيز وأخواتهم رضي الله عنهم أجمعين ak خمني أندون xam maam alxaaji Malick ak maam Cheikh Seydi Aboubacar si ak ay mbagam ak rakkam ci góor ak i jigéen mag ak ndaw ci ñoo xam ni euh, yàlla dogal ñu nekk ay jullit di ay nawle mag ñu baax ñooñu di ay gor yu yiw yu bëgg yàlla yu bëgg xam-xam yu bëgg mbaax àndandoog maam alxaaji Malick radiallahu anhu ak doomam yu baax ya rawatina Cheikh Seydi Aboubacar si ak magam ak rakkam ngir liggéeyal yàlla ba yàlla mel na ni nangul na leen yàlla na yàlla na sax te bàyyi nañ fi ndono loolu ndax ñoom ñëpp tey ñu nga njéegal yàlla ña ñu àndaloon nag daf ci am boroom xarkanam gu leer leeraay ga mu ngi jóge ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ko yàlla mayee waajur yu baax yu sell yu tedd yu yiw yu liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi may ko itam baay boo xam ni cheikh la sëriñ la way jur la di aji mottalik yaram ci zahir ak ci batin ak ci wàllu rox di turandooram muy cheikh Seydi Aboubacar Sy ki ma jublu ci kook yi mooy alxaaji mbay doon mbay mu baax ma radiallahu anhu nga xam ni la ko yàlla jëkk ak dimbalee waajalee ko ko moo di jur yu baax wayjur yoo xam ni dañu jiitu woon maam alaaji Alassane Mbay ba yàlla jë jë tibbi ko ci leer googu moom itam may ko njabootu leer nga làmb ko fekk ca alxaji mbay doon mu baax mii nga xam ni moom lañu taxawee tey di fàttaliku yu baax yu yiw yu tedd ci ay meloo ki wax ak i jëf ak andin bu rafet woo xam ni àndoon na ko ak Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu bàyyam turandoom di suñu bàyyi di suñu sëriñ di suñu kilifa ak doomam yu baax yu tedd yi comme ni ko Cheikh Mouhamadul Moustapha waxi léegi muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil Seydi الشيخ محمد المنصور سيدي الشيخ أبو العباس أحمد التجاني القطب المكتوم ابن الشيخ الخليفة أبي بكر نسي وإخوانه ساداتنا الشيخ عبد العزيز الأمين والشيخ محمد بن الحبيب والشيخ سيدي أحمد والشيخ سيدي سمي جده الحاج مالك muy sëñ Pape Malick ak góor ñaak jigéen ña ñu ànd caag itam ba ci tey xalifa bii fi yàlla teg tey muy sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour sama doomu turandoo di euh, ànd ceeg ay rakkam moom itam rakkam ji di wax naan sëriñ Babacar moo ma dimbali ci sama àll bi may jàng alquran ba ma yàlla tegee ci loxo alxaaji Cheikh Ndiaye maa béy mu maam alxaaji Ama Ndiaye maa béy mi nga xam ni baayam moo ko joxoon moom Baye Cheikh Ndiaye ak Cheikh alxaaji Malick mu maaseeg Cheikh alxaaji Mansour maam Maodo jàngal leen alquran. ñooñu nag ma tudd ñëpp ak ñi ma jëkk a tudd ci maam Alassane ak njabootam ak ay wayjuram ak maam Cheikh Al Hadji dañu bokk dañu nekk dañu bokk kuréel ci bëgg lu baax bokk xisb boo xam ne xisbun la min min ahzabillah dañu jël parti pour liggéeyal yàlla ci kaw suuf liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu sëriñ Babacar Mansour nekk tey di ko rafaatal kilifaam yooyu dañ ko ci jiitu muy moom muy sëriñ Maodo si rakkam muy sëñ Babacar Abdoul Aziz rakkam muy soxna Safiyatu si xalifa comme ni ma koy waxee toujours soxna Aminatu si xalifa ak soxna Roqiyatu si xalifa ak seeni rakk ak seeni doom bàjjen bàjjen boobu yi wala bàjjen yooyu bokk na ca suñu bàjjen bi nga xam ne mooy maamu sëñ Mansour bii di soxna Aïchatu si Malick ca Louga topp ci Cheikh Seydi Aboubacar si radiallahu anhu di njabootu maam Cheikh El Hadj ak maam Roqoy Njaay mu baax ma radiallahu anhum ajmain mbokk yi loolu mooy li nga xam ni mooy ndono li fi nekk te Cheikh sëñ Babacar si xam ni ndénkaaneb sunu borom la mënuñu kon dem leen ngeen seetal ma mbokk gu tedd googi doom yu tedd yooyu jarbaat yu tedd yooyu da ngeen fa fekk Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy sama doom sama soppe sama lépp ak képp ko mu àndal ci njabootu xadra bi waaw muy euh, muy sëñ Babacar Cissé mi tey nga xam ni mook Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ngi ni jóge ci mission wu xadra bi ndax mission la boo xam ni mission sociale mënu ko gën a sakkan mënu ko gën a féete kaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan naa dégg Cheikh Al Hadj Abdou Aziz du ko fàttali ci wara bàyyi xel nit ñi bàyyi xel seen dund war a am ak ñoom àndandoo bu rafet ci bëggante fonkante yërëmante dimbalante ak di bokk lépp lu yàlla wàcce su dee bànneex ñu bokk ko yàlla bu mu doon tiis su dee tey soj sax ñu sawar a dem seeti aju soj ji naka la def ci yaram wi ndax yonent bi saa sallam nee na man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minhum ku dul ittewoo mbirum jullit ñi ba di bokk ak ñoom lépp loo xam ni soob na yàlla mu wàcce ko ci seen kaw yaa boole su boobaa sa bopp ci jullit ñi waaye yàlla booleetu la ci ndax danga war a am participation responsable ci lépp loo xam ni dafa doon ittee jullit ñi ci luy dëggal dundal seenu xel mu dal ak seenu jëm kanam waaw ndax liggéey moo leen indi ci kaw suuf muy mission ba leen yàlla jox sëñ Babacar mi nag su demee yow Mouhamadul Mansour ak sa mag ji di sa jarbaat ci wàll muy sëriñ Mouhamadou Mansour Lo muy sëriñ Cheikh Tidiane si Abdoul Aziz sëriñ Maam Ousmane si Abou Bakr ah, ah, Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib suñu baay bu baax ba radiallahu anhu mu di seen sët bi seen doom ji di Bachir ak ñeneen ñoo xam ni sax xëy na ñu ngi ci biir salle bi ñu ñëw mu ni dangeen fa fekk Cheikh Mouhamadou Moustapha mook ku mu àndal fekk nañ ko fi mook Cheikhul Khalifa Trondo Maama di suñu rakk ci wàll ndax bàyyi xaaji waaye di suñu jarbaat ji wàll ndax soxna umul xayri si mu baax mi radiallahu anhum ajmaina mu ni nañu jaarale ziyaaraam ak ndokkeelam ak yeesalu bokk ak kóllëre cofeel ci yow sëñ Moustapha nga yeggalee nga yeggeel ko ko njabootu maam alxaji Assane Mbaye ak képp ko mu jaboote ak képp ko mu jaboote ci geño ak ci meen fa tabaarakallah ndax awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan yalla neena na ngeen di sam kolere ci alquran ndax ëlëk kat ku ci nekk dina la laaj mbokk ga nga amon ak ciofel ga ca waron ak kolere ga dina la laaj naka nga doon jëflante ak mbokk yoyu ndax yang ko doon def ci sama ndigal lima digle ci fonk ko wala deet te yalla ñuko gëna xam yalla dogal na seen mam ci xaji malik bind na lu mel itam ci suratul nisa ci ci ci ci ci njalbeenu introduction wu xutbay sëy ci yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha وبث rijalan رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله موم لا بغون واخ الذي تساءلون به والارحام kon war ngeen bàyyi yàlla xel ci lépp loo xam ni dénk na leen ko ngeen war ko sekk ci bokk ak cofeel ak kóllëre waaw ndax inna allaha naka yàlla kana aji nek la raqiban bi aji fuglu alaykum ci yéen ñëpp ci lépp lo xamne ne na ci mbokk ak xarit ak tiofel ak àndandoo ak koleur seigne babakar moom su nag ne seigne bi lolu suñ la ko waxee wër na ni egg na ci loxu ñu bax ñu tedd ñi nga xamni dañuy mbokk te nga tuddu legi ka ñu bokkal te mu nek ku yiw ku tedd ku fi yàlla jeli invité ko mu delu fa boromam muy alhaji mbay donne mbay mu baax ma radiallahu anhu ak alhaji ndiasse mbay al ustaadul allaama radiallahu anhu fekk nañ fi góor gi alxaaji Moustapha mi ngi nii toog di kilifa ci kër gi ak xadra bi ak alxaaji Mouhamadul Mansour Mbay kazalika naka noonu di kilifa ci kër gi ak mbooleem ku maam Alsaan jaboote lu jiitu may tudd Sëriñ Babacar sax bu Cheikh alxaaji Mbay dondo ak rakkam yépp alxaaji Ahmed Dudu kenn Mbay mi ak Cheikh Tidiane yi ak maam Malick ak ñeneen ci góor ñeeg jigéen ñi naa indi tam seen jaam bi nga xam ni moom moom sagaru njaam yi ci seen yaram muy ustaadu al ustaadu al al al adib alxaaji Lamine Diop di imam fële ca amokat ci amokat man mi alxaaji Lamine tam di sama xarit di sama soppi ma sopp ko lool mu sopp ma lool ak waa këram yëpp tabaarakallaahu ba tax na moom itam mi ngi fi waaye fekk nañ fi itam Cheikh Alxaaji Omar Seck Cheikh Alxaaji Omar Seck mii rakku Alxaaji Ousmane Seck radiallahu anhu muy mbokk di soppe alaaji doodu kenn nee na ma ba tàyyi ca kër sama wajur yooyu laa nekkoon ba may jàng école ca Thiès yaroo ca kër ga Cheikh El Hadj Omar Seck itam di kenn di ku baax ku Sénégal yëpp xam mu liggéeyal réew mi lu kenn xamul nu mu toll fa tabarakallah ak ñi nga xam ni ñëw nañu fekk si leen ci bés mu tedd bi ci ñu ma teg bët ak ñu ma tegul bët ndax bari nañu tabarakallah waaye yàlla xam na leen لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء خمنا له خوف كون بوكو نتي نيو الحاج بابكر جاي متد مسد مي دي نيت كو باخ خاليتو لول اك سما رك سيني سيد احمد موي ديريكتور موي بريزيدنت ديريكتور جنرال بو اي ام جي ايتابليسمون باي جاي حاج محمد جاي تم كوم ني نين كو واخي سانك الحاج بابكر واخكو خليفه بابكر ميغي تي تبارك الله si si fàttewuñu itam ñoo xam ni mën nga ni ñooy état bi ñoom sax kenn war leen woon jiitu ci mbir mi te ñu war a jaarale yóbbante xalifa bi ci loxo Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mu jëm ci ñoom muy euh, ndax euh, le gouvernement est la première institution de la République te ci fi Al di Mohamed Gay, dit di le préfet de Tivaouane wutu fi autorité état bi yëpp dali ko ci président ba ci moom wutu fi Alxaaji Mouhamadou Moustapha Ndaw le gouverneur de la région de Thiès Nek ci euh, la présidente du conseil du haut conseil de la du conseil départemental muy soxna Zeynabu Gay ture bu góor gi alxaaji kuddi yu gay suñu mbokk ma waaw mu ngi nii moom tam di ku baax koo xam ni daje nañu ba tàyyi fii ci Tiwaawan ak fudul Tiwaawan nekk nañu Italie sax sa gàmmu maam Cheikh Sidi Aboubacar mu ñëw fa bokk maam président yebaloon ko waaw ba tax na ñoom ñooñu ci wàllu état bi toog fii ci département de Tivaouane ñu ngi leen di ziyaara diko ko jaarale ci loxo seigne Moustapha comme niko seigne Babacar Sy Mansour ñane khalifa bi al hadji Mayel cham tam mi ngi ci biir tabaarakallahu di kilifa ci réew mi moom tam cham mi ngi fi faté wuñ ko ambassadeur cheikh omar sek wa waxna ambassadeur Cheikh Omar sek wa sami yu Cheikh al hadji Omar Fouti di ku bëgg tariqa bi ku bëgg wazifa fekk naa ba tàyyi masjidul rasul mu fay def hayla la moom Cheikh Omar mu baax mi te Serigne Cheikh sama rakk ji nekkoon ambassadeur ci Arabie Saoudite wax na lu bari ci mbaax goo xam ni gis na ni euh, ñëpp seedeel nañ ko Cheikh ambassadeur Cheikh Omar ca institution bi mu représenté le Sénégal ak àdduna bi yëpp ci Arabie Saoudite te siège bi nekk ca Jeddah defe naa ni suma juumul voilà ñoom ñu bokk le corps hmm? waaw fàttewuñu tam euh, le commissaire.

ñu koy nangu te di ñaan yàlla jàpp leen waaw fàttewuñu cheikh alhaji malik jigee suñu suñu turandoo maam di turandoo maamu boppam ndax diggante ay wayjuram ak maam cheikh alhaji malik bés cheikh alhaji abdul aziz sama mbay alhaji ousmane cissé bu jingee dafa ñëw radiyallahu anhu di seet al alhaji abdul aziz ci rek fekk na maa ngi koy soog a ñil benn mbàjj mu oyof ni waaye mbàjj mboo xam ni bu bu bu nubb la ci wàllu sedd fekk jamonoy sedd piir la te mbàjj mi doomu alxaaj Abdul Asiis su ñu naan sëriñ Badou si ma ko ko yónnee woon mu jóge ci Amérique te maa ko jële ci boîte bi góor gi ne ma sàngu ma ko ci néeg bi di néegu maam alaaji Maalik ci kër gu ndaw ci kër gu mag may bi ñu ko nee bàyyi alxaaj Maalik ñëw bàyyi alxaaj Usmaan ñëw na ànd ak doomam Cheikh alxaaj Maalik Maodo Cissé góor gi dafa ne bismillah na ñëw daal di jóg toog góor gi ñëw ñu nuyoonte mu teg ñu teg ko ci fauteuil bi ndeysaan bàyyi xajab la ne ma lemal ma ci saa si mbaaj ji moom ma lem ko mu ni ma def ko ci boot bi mu nekkoon kees gi mu nekkoon ma def ko ci bàyyi xaaju Malick bàyyi xaaju Ousmane bi dem mu ne ma demal ba ca oto ba nga jox ko alxaaji Malick sama bàyyi alxaaji Malick mu jox ko góor gi ndax mu koy sangu ci sedd bi pour wan la mag ñi ni ñu fonki kóllëre loolu yëpp nag suñ ko gisee ay lëson la ci ñun mm-hmm. yoo xam ni dañ ci war a jànge ni ñuy mën a bàyyee xel ñi nga xam ni dañu di ay wëllërey maama ki baay di ay mbokki maama ki baay ak ndey ak bàjjen ndax inna minal birri an yasilal mar'u wudda abihi waaw yent bi saai sallam nee na bokk na ci yiw wi gën a màgg te yàlla jox ko cër bu màgg ko ak cofeel ak kóllëre gu nit di am ci ñoñ baayam ak ñoñ deyam ak ñoñ geñoom ak ñoñ meenam ca na ko maam yi seqe woon na ko baay yi seqe woon na ko ndey yi seqe woon su doom yi ñëwee ak sët yi dañu war a gën a rafetal loolu mu gën a jëm kanam ndax yàlla da koy laaj ëllëg te sudul sax cër bi yàlla jox Cheikh Alxaaji Mbay la ci biir turaasu Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh Seydi Aboubacar si tàggat ko ca naq ko ca waaw waaw daanaka da naan def ko ca def ko ca taf ci boppam waaw comme ni ñu ni ñu gisoon ni yàlla yàlla yéege loolu ci la Seyduna Jibril defoon yonent bi saai sallam bi mu ko bi mu bi bi mu jëlee yonent bi saai sallam nekk ko ci dënnam xataa balaxahul juhd sëñ sëriñ alxaaji mbay dond noonu la ko turandoom def waaw madat dëgg-dëgg la ko jox madat la ko jox daf ko tëbb daf ko tëbb ndax te itam suy tëbb dafay fekk xol ba leer waaw te xol bu leer la gis ni turandoom boobu amoon na ko muy Cheikh Al Hadj Mbaye Donde mu def lim ci moom la muy def ci moom moo tax kaana ujubata zamanihi wa kaana ayatan min ayatillah foo ko mës a yónni ci gàmm bu ko boole kenn dana taxaw gàmm ko di début à la fépp foo xam ni andi nañ fa dund yant bi saa sallam dana la ko mett dana la ko nettali dana la ko firil dana la ko woyal moom ñamu doon andal ba ci ñoom fab fall mi doon ànd ak moom di jëbaatu sëñ Muniru waaw bis dama jóge ci al El Hadj Abdoul Aziz tàgg ko di dem sama kër ca rue de Tam ci wetu marché Kermel muy guddi àjjuma ma ñëw ba postu Medina ma jàdd avenue malik si wara a wara war a corniche ma corniche war dem côté bloc de Madeleine maa ngi déglu Al Hadj Mbaye donn li tax ma jël yoon bu gudd woowu sax dama doon déglu muy way euh, mu qissatu qissay rañaanu yent bi saai sallam waaw min al masjid min al min al min al min masjid al haram ila al ak qissa rañaan ga min al masjid al aqsa ila sidratil muntaha muy apollo ba dem naa ba mu yàgg sëñ Moustapha yëf yi dugg ma ba dama arrêté sama oto maa doon dawal man kenn nekk ci oto bi yàlla seede na ma damay taxaw di jooy ndax tanaasuq ak tamaasuq ak wuduux maanaam ni yëf yi lëngoo ni mu toftaloo ni mu nekke xissa bu leer boo xam ni mu ngi ci nettali xissa yi rañaanu yonent bi saai sallam ak sallallahu sa wa ak xissa bu mu jógee ca masjidul aqsa dem wuy ji boromam ca sidratul muntaha ak yonent ya mu doon jaar mu wóor la ni loolu leçon la ci histoire histoire yonent bi saai boo xam ni kenn mënu ko ci génne ci dundam ma koy déglu loolu dugg ma dugg ma dama dama arrêté sama oto ma dem ndax boobu mënatuma dama taqalikook sama sama dama jooy ba yàlla dogal ma feex ma kon ma fomp sama rangoñ taalaat sama oto continuer dem ba egg rue de Hann dugal sama oto ci garage bi bés boobu daf ma gën a yokkaat cofeel ci alxaaji Mbay Donde lu mu rëy ga mu rëyoon ci man moo tax ma toog fii ay nangami at après di ko fàttaliku di ko nettali ci kanamu njaboot bu tedd gi ba tax na kon yàlla ko joxoon cër boobu ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick jox ko ko ci Seydi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu kon nag ba mu demee ba woon ñu gannaaw Sénégal yëpp a ko ñàkk lislaam a ko ñàkk ak taarixul islaam yi ñoo ko ñàkk siiratu rasuli sallallahu alayhi ak biographie yonent bi moo ko ñàkk te kuy déglu kuy déglu waxam ak kàddoom dana doy sëkk yóbbal ak ndimbal ak leçon ci xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dem na waaye bàyyil nañu fi kàggu bàyyil nañu fi am ndàmb loo xam ni ku ca ku ca sëpp sa loxo soo ko maccee mooy dàq lem te dana dana dana def ci yow cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa su demee tam ca hal min sabili tam di la ko woyal noonu ngay amee cofeel ci li turandoom wax ci Cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu moom daal alxaaji mbay donde bunt yu bari la ko yàlla mayoon yu nit mën a jaare mën a jëriñoo ci moom kon nag yal na yàlla barkeel nekkam ci kanamu sunu borom moo daana tabaraka wa te yéen ñi fi nekk di njaboot yàlla saxal teraanga ci seen kaw ci barke li yàlla wax ci suuratul kaf وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا يالا نينا دينا دينا جيس سما جام ديما ووت ديما جامو ديما ma ديما di ma ديما di ma woon يالا ما ma جام بوبو ba man yàlla ma su demoon tey ba na àdduna ba am junni ak itam lu mu jurati dinaa ko bëgg ku doomoo ci moom dinaa la bëgg ku sëtoo ci moom dinaa la bëgg ndax man noonu lay fare allocation familiale duma ko yemale ci bopp ki nga xam ne moom rek a doon def lu baax ndax yàlla dafa yàlla kenn du ko jëm naa ni yàlla dafa baax dafa yiw dafa tedd soo koy woon baax mu fay la lu gën a baax moo tax pissa boobu ci suuratul kaf yàlla nga nettali loo xam ni nee na yonent bi saay salaam am na ñoo xam ni ay jirim lañu woon seen baay génn àdduna am nañu sax ñoo xam ni dañu ni seen maam la du seen baay kenn ci seen maam ju góor yi la woon te maam ju góor baax na maam ju jigéen baax na gone yooyu nekkoon jirim yàlla nee na seen baay jóge na fi waaye baax gu baay ba baaxoon wuy euh, yiwu ga seen baay yiwoon tedd gu mu teddoon bëgg ma man yàlla tax na ñi juddoo ci ko kii di sama jàmboo bi dama leen signer 100 pour cent sécurité pour toujours boo xam ni sama sécurité moo leen di làmb sécurité ci seen ci alal ju ñu war a am ci yaram wér-gu-yaram gu ñu war a am ci teraanga ju ñu war a am ci xéewal yu ñu war a am mu tukkee ci man-man yàlla moo tax kuy defal lu ba kuy def lu baax rek santal yàlla ndax lu baax loolu day béel sa gannaaw làmbaale sa njaboot lolou la gis ci wàllu alxaaji mbay donde mu bax mi lolou nak xaaj mohammed mustafa mom mo taxone ñu ñëw dama nan xaaji mbay donde sudul won sax euh liñu gis mu def ko njabotam gi rek lu bax lañ leen xamale la lu bax lañ leen xamé daf lay wor ni dañ ko jele ad durru min aslihi waaw ad durru min aslihi waaw lu bax melo melo bu bax wi ñu am ak yiw gaak tedd ga ak yar yar yaak teggin ja fonk xam-xam fonk diine fonk tarixa bi fonk bokk dañ leen ko jàngal nampatal leen ko loolu éducation mu koy indi ci nit looloo tax nag ñu fonk lool sëriñ Babacar mii di doomam ju mag fa tabarakallahu ak kàddu yu rafet yi mu fi wax léegi yal na yàlla guddal faram may ko wér ak rakkam yu baax yii di alxaaji ahmed kenn ahmed du kenn ak ñoom maam Cheikh ak ñoom maam Malick ak góor ñeeg jigéen ñi ci des ak jarbaatam yi yàlla ngeen sut góor gi fan dese barke bi yàlla defal leen jàmm incha allahu taala yéen góor ñi yéen jigéen ñi ñu ngi leen di ziyaara te di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi te di ñaan yàlla wàcce ci kaw alxaaji mbay dond ak alxaaji njaase mbay anwaaran min indihi subhanahu wa taala wa buxuura saxaain wa maxfiratin wa rahmatin wa saatin wa fadlin wa karamin min indihi subhanahu wa taala تبارك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخره أكبرك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة ولا خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه تلفنا أوصى في يوم ملو يوم يالا سرقوا لكم الحاجم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته